ñaari soxla amuñu ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox daara ji dox mooy sun soxla amul beneen soxla sunu lépp ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak sunu mbir mépp mépp mépp daal ma ngi ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox nañ jàpp ci daara yi jàpp ci daara yi doomi daara yi jaar ci daara yi doomi daara yàlla jox xëjul ci daar yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maa ngi ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk. Daarakoki TV la chaîne au service du Saint Coran télé bi liggéeyal Alquran al Karim. Bismillahir Rahmanir Rahim. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين qaala rabbi a'lamu bimaa ta'maluun fakaddabuuhu fa axadahum cadaabu yawmi zulla innahu kaana cadaaba yawmin caziim inna fi daalika la aaya wa maa kaana aktaruhum mu'miniin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين kadhalika salaknaahu fi quluubil mujrimiin laa yu'minuuna bihi hattaa yarawul azaabal aliim fayaatiyahum baghtatan wa hum laa yash'uruun fayaquuluu hal nahnu munzaruun afabi'azaabinaa yasta'jiluun أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم ظلموا أنفسهم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم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 ñii nuyu mbooloo bi fi yëpp nekk turam ak santam di leen nuyu turu sëriñ Fallou jox seen wàccuwaay di leen ziar di leen dalal jàmm ci dëkk bu tedd bii di ko jox suñu nuyoo monsieur le représentant de son excellence le président de la république monsieur le sous nuyu di jox sa wàccuwaay di la ziar. ñu lëkkate suñu nuyoo ci son excellence le président de la République ak le premier ministre ak l' ensemble du gouvernement waaye di la yëkkate nuyoo le gouverneur de la du département di leen bu baax nag ci teewaay bi nga teew fii tey bi ndax ku ne xam ne tey lii gis ñu mbokk bi def tey jaadu na administration taxaw jëmmal jotaay kon préfet ñu ngi leen nuyu bu baax di la di beral nuyoo nag suñu kilifa bu mag bi suñu sëriñ sëriñ Maxtaar Naar Lo di ko nuyu di ko ziar di ko jot nuyoo sëriñ Bopp ak Xaji Mouhamadou Xabaan di ko ay nuyoo waa Bopp yëpp di ko ziar di ko ñaanal ndax moom dañu cofeel gi ñu am ci moom ak ñun waa Kokki fi ñu ko teg mënuñu wax ci moom ndax xeet ku ñu xeet ci moom kon bu toogee lu jaadu sax ñu yëkkati kàddu waaye dafa fekk ne jotaay bi moo laaj ne ñu yëkkati kàddu waaye kon duñ ko yëkkati kon bi ñu ngi lay ziar bu baax a baax di ziar nag mboolem ñi lay jàppale si liggéey bi commencé ko ci bàyyi fàllu ba ci mboolem kuy liggéey rek ñu ngi koy ziar di ko jox wàccuwaay di ko ñaanal ci borom ba liggéey bii nga xam ne moom la ñu dëgmal ñun ñëpp ñu téye ko suñu borom may ñu àggale ko di beral nuyoo nag bu mag tey ci waral jotaay bi tey di gan bu mag di le directeur Abdoulaye Ndaw directeur de l'agence de développement local monsieur le directeur ñu ngi lay ziar di di bu tedd di la nuyu it di di nuyoo waa waa daara gi ñu ngi la ko jot bi am mbégte lool nag ci bu ma doon wax ko tubaab waxee efficacité man naa ne yow rek laa efficace franchement bu ma ko doon définir efficacité yow dong laay bi ñu xamante ak bi ñu waxee lépp dafa une semaine lépp matul une semaine seen bi président Aliou Sall moom woo ne dama lay boole Abdoulaye Ndao ngeen waxtaan téléphone ñu déggante ñu waxtaan mu ne ma dama leen may leen benn boulanger ma ne ko ma def rafet na lool baax na ndax soxla nañ ko ndax ñu suñu gerte bi am nañ cinq mille quatre cent quatre-vingts étudiants yu ko nekk kon bu ñu dee bu wax boulanger bi ñun daara ko fële ñu ñoo ko yelloo ñoo ko soxla mu ne ma kon semaine bi dinaa yebal sama ay techniciens ñu ñëw xool si ko ñu xool nan lañ ko mën a implanté ma ne ko monsieur le directeur loolu rafet na lool baax na waaye li ma gënal nga ñëwal sa bopp yow en tant que directeur nga ñëw xoolal sa bopp institut boo ñëwee da nga xam ndax comme xamoo ko mos a def sa tànk bëgg naa li nga defal waa Koki nga ñëw ñu xam la nga teg sa tànk mu nangul ma loola ne ma maay ñëw benn boulangerie lañ waxoon bi ñu ñëwee bi ñu paree visite mu def ko ñaari boulangerie moom kon monsieur le directeur ñu ngi lay nuyu pour waa COP yëpp di bëri nuyoo toog le représentant du maire premier adjoint mi ngi Papa Sy ak El euh, Hadj Modou Makhtar Boub di adjoint ak président Makhore Dia ñoom ñoo fi municipal yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jot nuyu nuyu na suñu nga xam ne tey bu ma tuddee Serigne Makhtar tudd naa leen ñoom Baye Fall Kébé ay Mourou Fall Cissé docteur ñoom ñëpp benn lañ ndax liggéey daal rek moo leen ñor ba gis suñu frère docteur Ahmed Makhtar Lo ñu koy nuyu di ko ziar kon monsieur le directeur boulangerie yi fi ko def def nga ko fi ko def dëkk ndax fii di daara ni ma la ko waxee ci cinq mille quatre cent quatre-vingts yi fi nekk xaw ma ñooñu seen lépp sëriñ bi moo ko yor kenn fayu si dara dara sëriñ bi moo seen añ yor seen dëkk yor seen dara kon nag wàllu ndekki bi yow contribué nga ci kon jàppal na institut bi léegi danañ mën di am mburu bu ko ndékki kon fi def dañ ko ko fi ko def dañ ci sax nag son excellence président de la République di ko wax ne lii ñoo yàlla yor responsabilité responsabilité bu ñu ko joxee nit da war a assumer am bu baax a baax ki la jox responsabilité lan nga ko ci waaye yow li la son excellence président ko te xamante ni tey fi ko def kontaan na ci ndax fii daara ji daaraam na ko xam kon fii ko defal tey bi kontaan lool xam ne yow mérito que du la ko defit danañ ko téye danañ ko def lépp lu ci war su ba xale koo jariñoo danañ ko def kon li lay jox daal mooy dina ñaanal teraanga ji nga xam ne defal ko waa Koki defal ko daara Koki ñu lay ñaanal suñu borom yokk la ba boo fi ñëwee déwén wala beneen waxtu boo fi ñëwaat yàlla ci directeur général boo fi ñëw nga indi doomu tànk ministre yàlla mën na yàlla ko yàlla defal parce que lii nga ñu defal dafa sedd suñu xol ndax lu matul une semaine nga réagir indi sa équipe monté plancher bu ne mi ngi nii vraiment efficacité bi ñu ngi nuyu si équipe bi nga àndal yëpp nag di leen ziar ñun mbooloo mi fi teew yëpp kenn ku nekk nuyu nañ la ziar nañ la tey bis bi dafa xaw a gàtt ndax ku ne xam na ne am na yeneen yu ñuy xaar ndax bis bi moo laaj loolu dafa xaw a moo tax ñu bëgg a gàttal foofu kàddu gi rek di leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal ngeen salaam nuyu délégation lim nañ ko sànq son directeur de cabinet ñëw na fii le président de la commission domaniale aussi mi ngi fi Amadou Matar Mboup mu xure yi ñoo boole ñoo représentant des jeunes Ahmed Touré Ahmed ma Mademba Dieng ak yeneen conseil yoo xam ñi ngi ci gannaaw loolu yëpp rek di wane solo gi mu jox ndaje mi ñi ngi commencé suñu nuyoo di teg suñu nuyoo ci loxo monsieur le représentant de l'État le sous-préfet de l'arrondissement de Koki Moussa Ba di nuyu le chef de village di nuyu sëñ bi sëñ Maxtaar ñu ngi lay nuyu di la jox nuyoo monsieur le maire di la jox sa wàccuwaay ak ñi nga ànd ak liggéey bi yépp fii di nuyu di beral nuyoo le directeur de l'ADL monsieur Ndaw comme ni ko ñëpp waxee waaye aussi di nuyu ndongo daara yi nga xam ne tey jii nii lii nga xam ne le directeur indi na ko daanaka ngir taxawu leen moo tax mu def ko euh, ci turu monsieur le maire nag day rafetlu bu baax a baax a baax lii ndax lan ci kaw jàppale bi ngeen di jàppale daara ji da ngeen koy jàppale moom mi nga xam ne moom moo jiite dëkk bi ndax lu ko waroon rek ku ko def rek moom nga ko defal kon day yónnee ay kàddu cant ak gërëm d'abord mais aussi di sant le président daal la république monsieur Macky Sall di wax ne programme yi mu teg ci PSE mën nañoo wax ne programme bii tey day dugg ci li ñuy wax régler les problèmes de l'équité territoriale xam nga tey bu ñu demee ba kokki nga wax ñu ko sànq Ndoukoumane daara partout ñuy corriger les inéquités territoriales c'est parce que le président prend en compte toute la population du Sénégal tey jii bi président ñëwee ba léegi amatuñ benn programme bu ñuy wax di ko yemale ci benn gox bu ñu waxee rek gox yëpp mooy le programme d'inclusion sociale loolu tey moom moo jur lii nga xam tey jii nii directeur def na ko ñu wax lu am solo nag parce que boo xoolee ci seen euh, euh, logo yi ñu ne pour des territoires résilients tey boo ñëwee kokki xam ne loolu ñuy wax tey jii nii ci la ñu nekkoon la pertinence de cet slogan là mën nañoo wax ne tey jii nii kokki am na fi justification daara kokki ko xam-xam ne dafa yàgg ci am taxawaayu yor ndongo yi laaju leen euh, tegu leen benn coono tegu leen benn sart waaye di wut ay pexey boppam ak ñi mu àndal ngir jàngal leen xam-xam yar leen teg leen ci yoon ba pare def ko ngir yàlla kon kooku tey bu ngeen ko fekk see ci lii nekkoon na ci résilience yàgg na monsieur le directeur jàppal ne la maire ak l' ensemble de la population de Koki kontaan nañ am na sa collaborateur bu ko wax xam nga li nga def nii wane na yaa ngi liggéey parce que ku amul programme doo déplacé wu sa biir bureau ngay yem tey jii action yi ngay def nii nga xam ne développement local lañ la wax waxuñu la développement urbain waxuñu la développement de bureaux mais dañ la développement local tey fépp fu localité am tey yaa ngi fay dem di def des actions yoo xam ne nii day réglé les problème économiques tey jii képp ku ne xam nañ ne tey ku régler la protection sociale régler ce qu'on problème de l'économie lii nga def nag tey ci daara ji jàpp nañ ne indi na ay mbir yoo xam ne tey jii nii programme mu président lay wut ndax tey boo fexee ba lii am non seulement nga régler problème économie ndax tey ji li daara ji doon dépensé di ko jënd ci mburu wala mu koy def ci ay effort dana am lu koomal seen biir waaye yemu ci tey jii nii mais yaa ngi créé ce qu'on de l'emploi te ku xam président xam ne problème emploi da ko tenir à cœur muy régler xëyu ndaw ñi di régler aussi ce qu'on appelle le problème de la formation professionnelle parce que xam nañ ne tey ku indi pour da nga former ay jeunes jàngal leen nu ñu koy doxalee boo leen formé ba pare da nga créer emploi ñuy continuer di liggéey kon tey programme yi président def ci daara heure bu ñu xëyee dañuy gis la pertinence mais aussi dañuy gis la pragmatique nga xam tey teg lu pragmatique tey jii ci loolu ngeen nekk. président bi mu recevoir daara yi daf leen a waxoon lam leen waxoon tey gis nañ mu ngi koy def bi su xëyee bu demee tey ba concours mu créé spécialement concours boo xam day jël 500 ndongo daara yóbbu leen ci daara yi boole leen ci économie bi boole leen ci fonction publique di leen fay kooku xam nga ni jël na en compte bu baax a baax a baax dimension daara. yamul ci loolu tey muy teg programme yoo xam tey foo dem ci Sénégal daara ju fa nekk tey gis nga sa bopp ci président kon tey mën nañoo seere ne le président et est incontestablement incontestablement l'artisan du développement local parce que kan dafa nekkoon maire xam lan moo xew ci dëkk yi xam lan moo xew ci gox-goxaan yi jàppal ne daal monsieur le directeur le maire toute la population de Koki kontaan nañ ci action bi nga def mais daan la continuer di la accompagner di accompagner daara ji ndax yu mel nii di am ndax ku defal daara ji jàppal ne Sénégal gépp nga defal da ngaa defal ay doomi yu jugee partout au Sénégal mais aussi dans la sous-région ñëw nekk fii tey bu ngeen defee action yu mel nii jàpp nañu ne tey yéen a ngi résoudre les problèmes petit à petit mais aussi yéen a ngi résoudre les problèmes durablement mais aussi de façon efficace donc le directeur le général monsieur le maire mi ngi lay sant di la gërëm di wax ne fii nga nekk yoon wi nga tegu noonu la bépp action boo xam ne yaa ngi koy mën mëne mu jëm daal le cadre développement local jàppale dañ la jàppale au delà même de sa commune même rawatina ci commune am parce que comme ni nga ko waxee naataam nga maire comme yow kon daal ñu ngi lay ñaan di la ñaanal programme yi nga xam ne commencé nga yàlla dafa la ci tawféex mu yegg jàmm mais aussi nga am soutien wu sa moromu maire yëpp yëpp yëpp yëpp ba fel bi law ba law ci biir dëkk bi ñu ngi sant yëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. bi la DG Yougane macha allah donc. Euh, euh, immortaliser l'événement donc lii la kilifa gi indaale hein jox ko xaritam sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bu tedd bi ñoo ngi yëkk ci kàddu fii ci dëkk bu tedd bi muy daaray Koki di commencé di nuyu monsieur le sous-préfet monsieur le sous-préfet toogal fi président de la république toogal fi gouvernement bi yépp politique publique yi ñuy décliner di ko def ci biir territoire yi ci biir collectivité yi ñoom ñoo koy saytu ñoo ko toogal ministère yépp képp ku fi ñëw di ndaw état moom mooy sa bunt moo tax ñun ba ñu amee mbébét ñëw fii wooneen ko téléphone waxtaan ak moom jébbal ko not conceptuelle wala terme de référence yi nga xamante ni moo tënk projet bi mu rafetlu ko trop dalal suñu xel wax ñu ne bu bés baa dana bàyyi lépp lu muy def ñëw toog jëmal bés bi donc monsieur le sous ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ñoo ngi ñaan yàlla yàlla defal la yokkute ci sa biir liggéey di nuyu également. le chef de village Cheikh Diop ni sama xarit euh, di wax ne les chefs de village ñoom ñooy substitut président de la république normalement buntu këram dafa war a am drapeau Sénégal muy flotté parce que chef de village ci biir dëkk dafa am lu bëri moo koy réglé balaa même muy yegg ci maire wala balaa mu yegg ci sous-préfet toll leen nag jamono boo xamante nii léeg-léeg nit ñi du ñu bàyyi xel loolu nguur gi président de la république ci boppam xam na ko moo tax mu am fu leen teg moom itam mu nekk nit ku yaatu nit ku am vision nit ku am gis-gis bi ñu xamante yàggul euh, sama xarit le président Aliou sal daf ma seet si ab xames ba le passé sama biir bureau ñuy waxtaan lu yàgg mu ne ma sa programme yi de maa ngi gis yaa ngi déroulé ay programme boulangerie unité de valorisation et cetera et cetera ma ne ko boulangerie nag man euh, daara yi lañ koy jox demoon naa boori daaru Minam saalum ba ma jógee côté Tamba léegi nag maa nga war a dem Louga ci daaray kokki mu na ma kokki de sama kokki la sama doom bi ma jur tuddee ko Macky jël naa ko yóbbu ci daara xaaral ma woo Cheikh Diop mi nga xamante ni mooy loxo ndeyjooru sëñ bi ci saa si mu woo ko comme ni ko Cheikh waxee rek mu woo ko jot ko ne ah dama lay booleeg sama benn xarit war na fa mën a ñëw pour jàppale la ma waxtaan ak Cheikh tout de suñu xol yi dëppoo ma ne ko danaa fa yónni ay ndaw ñu ñëw xoolal ma liggéey bi defal ma diagnostic bi parce que nit kat booy dem ci moom bëgg ko yóbbul dara la nga koy yóbbul na nga xam ndax bëgg na ko wala bëgg ko ndax yelloo na ko wala yelloo ko est-ce que dana fa am njariñ wala déet parce que tey munoo ne da ngay faj malaat te feebaram xooloo ko ba xam ko ba pare mu ne ma li ma gënal de bul yónnee ñëwalal sa bopp xam nga pour wan ne la chef de willage la mais politique publique loolu moo ko yor munoo nekk ca bureau ba Dakar bëgg bind ordonnance dem ca pharmacie ba jënd ko war ko yóbbul malaat boo xamante ni ma ngi ca biir Fongolemi donc il faut que état léeg-léeg ñuy génn di dem ci territoire yi di dem ci suuf parce que président loolu la bëgg Cheikh mu ne ma ñëwalal sa bopp ma ne ko may naa la loolu samedi ba ma xëy ñëw fii wër naa dëkk bi yëpp daanaka daanaka bëgguma woon sax mu nekk loo xamante ni lu nit ñi siiwal parce que booy def dara te yàlla tax jarul def attroupement jarul lambaayu politique ma ñëw xool gisanteeg sëñ bi mu dalal ma ñuy waxtaan ma xool lañ jàppoon pour def ko fi muy benn boulangerie mais bi ma ñëwee dama gis ne ëpp na loolu ci lañ jël décision ne dañuy yokk beneen boulangerie donc Cheikh Diop maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant di ñaan yàlla yàlla defal la jàmm yàlla yokk sama maxaama may nuyu sëñ bi bu baax a baax parce que moom itam dalal nañu waxtaan lañu ñaanal nañu ñaan ci projet bi loolu am solo la moo góor gi may dam liñ toog nii waaye dafa am koo xamante ni aussi il faut rek ma taxaw ci muy le magistrat de la ville muy muy monsieur le maire sama collègue maire moom dama ko woo moom itam balaa may ñëw fii sax woo naa ko mu ne ma sama yaram dafa sutante maa ngi dakaar bu soobee yàlla dinaa def tout mën naam ma génn bu ma génnee dinaa ñëw ma ne ko de toute façon li ma bëggoon rek mooy nga yëg ko parce que mënuma man sax Sélé mi nekk aide de camp président yàgg na mu wax ne ma il faut mu boole ma ak yow ñu xool lu ñu jàppalante ma ne ko yow sama sama jàppale am nga ko ba pare parce que benn lañu donc le magistrat de la ville muy le maire ak son conseil municipal maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant ak monsieur adjoint maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant ak délégation bi yëpp parce que lii mooy liggéey bi daanaka municipalité maire yi li ñu yaakaar ne mën nañ ko ci jëf mën nañ ko ci doole duñ ko mën léeg il faut nit ñi di comprendre loolu ni ko comprendre rek mooy direction yeeg projet yeeg société yi nekk ci biir gouvernement bi nekk feneen léeg leen di wàcc dem di leen dimbale parce que li ñu def nii mën nañ wax ne maire bi lañ ko defal parce que kat buñ ne commune kokki ci biir commune Koki daaray Koki mu ngi fa ay ndongo daara lu mat cinq mille quatre cent cinq mille huit cent ak lu teg ñooñu dafa am lu war ci diggante ñoog municipalité bi comme ni ko adjoint waxee léegi-léegi rek ku fi yëkkati bant meer la ko yëkkateel ku fi samp bant maire nga ko sampal parce que moom la yàlla teg fii ñuy rafetlu ni mu yore dëkk bi ñuy rafetlu turu ki fa mu yegg donc moom itam ñu ngi koy yóbbante ay nuyoo di ko wax ne ko am nañ ay programme parce que lii ñëw bi ñëw nii tey am na yeneen ñëw yu ñu fiy ñëwaat ak yeneen projet yu ñu fiy indi parce que boulangerie mobile bi kese ñun yemuñu foofu am na yeneen ñaari xeeti projet yoo xamante ni mu ngi ñëw léegi léegi fii ci biir Koki donc loolu lu leer la te danaa wax lan moo tax ak fan laa ko teg pour ñëw nag exactement ci comme nu ko sama collègue yi waxee léegi léegi balaa maa xuus rek damay gërëm délégation bi ma accompagné jóge Dakar directeur yëpp quasiment ñoom ñëpp ñu ngi fi di gërëm presse bi. la presse parce que tey lu am rek ñoom la di gërëm magu dëkk bi di gërëm ndongo daara yi alors li ñu indi fi tey dafa am benn programme bu ñu taxawal ci ndigalu président de la république ci ndigalu monsieur le ministre Mamadou Talla ministre des collectivités de l'aménagement et du développement mu jox ñu ndigal ñu ñëw fii li mu fi def nii moom moo ne ma demal def ko parce que moom moo nekk suma diggante ak président Macky alors président Macky Sall dafa dajeek euh, ndongo daara yi euh, ca jam ñaajo sëriñ daara yi jël ay engagement jël ay mesures yu war a defal jàngalekatu daara yi war ko defal ci biir daara yi mu dellu encore journée de la décentralisation mu yëkkati wax fa kàddu ñaax gouvernement bi ne leen neen bàyyi xel daara yi moom ci boppam ci biir gouvernement ba ca présidence mu teg fa bureau boo xam ne day toppatoo affaire u daara créer ay procédure ay loi yu bari yoo xamante ne dafa war a jëm ci wàllu daara loolu bu amee nga nekk ndaw ci biir gouvernement war nga mën a xool noo jëmale loolu monsieur le ministre Mamadou Talla loolu la def mu jël benn circulaire wax képp koo xamante ni nekk nga maire wala président conseil départemental ne la na nga xool ca fonds de dotation ba ngay am mu jëm ca njàngale ma nanga nga ci jël vingt pour cent vingt pour cent yi boo ko jëlee na ko yóbbu ci daara yi ñu mën see jënd ay mën ci am ay jumtukaay yu mën a mën a permettre daara bi mu dem ci kanam alors man suma ministre Mamadou Talla bu defee loolu ma nekk maire nekk directeur général développement local war naa mën a xalaat ma itam tëgg benn projet boo xam ne pour jëmmal bëgg-bëgg boobu mu am ci lañ taxawal benn programme bu mag tuddee ko PR2C programme pour le renforcement de la résilience des communautés ci biir programme bi dafa am ay projet benn projet bi ci gën a am solo moo ñu fi indi tey muy le projet intégré un daara une boulangerie mobile un champ du savoir benn daara benn four benn boulangerie ak benn toolu xam-xam alors pourquoi daara nga war a teg ci wet gi boulangerie parce que boulangerie bi day permettre daara bi ni ko adjoint maire waxee léegi léegi mu amee activité génératrice de revenu day permettre daara bi mu am formation day permettre daara bi mu créer emploi day permettre daara bi aussi mu lutter contre la malnutrition parce que mburu bu ko waxee farine la la malnutrition c'est important l'insécurité alimentaire loolu yëpp four bi da ko koy permettre alors ci wet gi ñu ne toolu xam-xam toolu xam-xam boobu noonu tool bi day nekk toolu céréale blé blé Sénégal xamu ko ci wàllu di ko liggéey di ko bay mais mburu blé lañ koy defaree blé bi ñun ñu ngi koy jëlee ji bitim réew ñu ngi koy jëgaane ji bitim réew tey Sénégal xayma yu mujj yi boroom xam-xam yi ak gëstukat yi ñu ngi wax di ci werante ñi ngi wax naa sept cent cinquante mille tonnes de la ñuy soxla at mu jot ñii ne huit cent mille tonnes de blé la soxla at mu jot niru na ne daal blé bi ñun bayuñu ko moomuñu ko dañ koy jéggaani fañ koy jéggaani nag ma nga nekk dëkk bu tudd Russie ma nga nekk dëkk bu tudd Ukraine léegi la ñu jëlee ji ko France ak ci yenn pays baltes yi alors ñoom bu ñu ca guerre ñoom diggante Russie ak Ukraine ña ngi ca guerre bu ñu guerree ñoom tëj seen poor yi bato yi nga xamante ni ñoo war a génnee blé bi parce que fa lañ koy bayee indi ko fii ñun ñu ñun ñu jëfandikoo ko bato yi du ñu dox bu ko defee farine jafe farine jafe mu cher mburu mi cher ñu ne waaw ñun loolu nan lañ mën def ba rompre dépendance boobu ñu ne au niveau de l' agence de développement locale dañuy taxawal la grande initiative pour le bouclier céréalier maanaam ñaax nit ñi ñu dellu ci mbay bi nga xamante ni mooy ñun céréales yi ñu am suuna boo ko bayee sunguf la basi mën nga ci génnee sunguf mboq mën nga ci génnee sunguf ñu puus nit ñi ñu jëm ci loolu moo tax dañuy toftal boulangerie bi ñu teg ci wet gi cinquante hectares wala quarante hectare wala vingt hectare boo xam dañ lay jox semence certifiée bu maïs nga toppatoo ko ñu accompagner la mais pour coque yi du maïs lañu fi def du mboq lañu fi def coque yi blé lañ leen di indil blé semence blé waxtaanee nag ISRA ba pare place bi ngeen war a def cinquante hectares blé bi waa ISRA dinañ ñëw dem xool ko Kër Momar Sarr la apparemment biñ ci waxtaanee ñoom dinañ fa dem ñëw xool ko ñu jox leen semence su cinquante hectares blé mu accompagner four bi loolu kat dafa am lu mu ñu war a wan bu fekkee mbubb mi ngay sol lañ koy defaree bitim réew lay jóge dàll yi ngay sol lañ koy defar bitim réew lay jóge mais bitim réew bu tëjee buntam da ngay def yaramu neen lii gën a métti mooy nga am dépendance ci wàllu la ngay lekk yow pour nga lekk il faut nga dem wuti ko bitim réew bitim réew bu tëjee buntam mënutoo dem mais xiif dana la rey moo tax nag président de la république wax ñu neen pouse taxawal programme yu mel noonu programme yoo xam ne dafay wàcc dem ci gox-goxaat yi corriger li nga xamante ni mooy les distorsions et les déséquilibres territoriaux muy équité territoriale tey fuuru mburu boo xam ne day defar pâtisserie day defar cake day defar pain chocolat day defar croissant mais gaar nga ko doon gis biir Dakar ngay dem ci ab ci ci pâtisserie ci ci ci ci Brioche Dorée fa nga ko doon gis mais tey kokki fii dana mën a am pâtisserie boo xamante ni ñii sant Lo ñii sant Diallo ñii sant Sall den ci war a mën bu ñu xëyee ndékki ba kontaan yàlla boo ci boole meew xam nga day gën a xumb donc loolu il faut ñu bàyyi xel lu mel noonu loolu la ñu fi indi indi bi nag. lépp ngërmaane beeg lépp président de la république moo ko moom lépp ministre Mamadou Talla moo ko moom parce que ñun ay ndaw lañ ñoom dañuy sant ñu def ñu xool dara ñu xam ne bëgg nañ li ñu daw def ko sans pourtant ñu wax ko ñun ci loolu lañuy ñuy dox leneen li ci des mooy beneen programme bi nga xamante ni war nañ ko fi indi mu ngi jëm ci wàllu xarala yu bees yi le numérique numérique bu ñu ko waxee mooy internet internet damay wax souvent ne escalier la boo xam ne fépp fu ne la lay yóbbu internet fu ne la lay yóbbu internet du téléphone kese internet du ordinateur kese internet levier la boo xam mën na la yóbbu fu nekk baykat bi nekk ci toolam naka la ko internet mën a dimbalee bu bayee ba nawet wàcc li mën a jaay mu jaay ko kii nekk ci hôpital war a faju nan la ko internet mën a dimbalee ba mu mën a faj ki nga xamante ni sàmmkat la nan la mën def ba internet dimbale ko ba li muy sàmm mu mën a mujj léeg-léeg sàccum jur gi gis nañ ko sàccum jur gi dangay toog yor sa gétt wala yor say fas nit ne ko domet yóbbu ko nawet jot nga bëgg bay doo mën a bay parce sàcc neen sa fas gouvernement bi jël mesure ne léegi day criminaliser vol de bétail boo sàccee xar sàcc fas sàcc nag mën nañ laa tëj waaye ñun adel bi ñu ñëwee dañoo xalaat ne waruñu yem foofu ci criminaliser kese ñu ne neen dem ci surveillance surveillance mooy maanaam tey ñu jël internet ci misaal rek jël internet ou benn application boo xamante ni day am benn lu toll ni bouton bouton mbubb nga def ko ci jur bi ci fas bi wala ci nag bi wala ci xar bi lié ko ak sa téléphone wala sa ordinateur fu xar bi nekk nga gis ko fu fas bi dem nga gis ko tey loolu ñu ngi koy def ci oto yi sa oto boo ci defee application boobu noonu oto bi fu mu nekk ci biir Sénégal boo composé numéro bi danaan la oto bi ma nga place sàngam oto bi mu ngi daw wala mu ngi taxaw lu mel noonu ñun ñu ngi liggéey ak suñu service ak suñu partenaire pour jéem a naka lañ ko mën a dugalee ci biir càmm gi bu ko defee tey sàmmkat bi fa toog du mën a bu juróom réere mën na xam fan la jur bi nekk donc ñoo ngi liggéey ci projet yu mel noonu leneen li ci des mooy ci wàllu formation parce que buñ ne kokki buñ yem rek ne kokki rek dañ naan posé wu ay question mais kokki lan mooy apport am ci biir économie réew bi maanaam kokki lan la indil Sénégal buñ ne Sénégal bërigo bu fees la ñu ne waaw bërigo boobu kokki lan la ci am kokki histoire la boo nee kokki wax nga Touba Mbakke boo nee kokki wax nga Tiwaawoon boo nee koki wax nga Laayeen yi wax nga Ñaseen yi wax nga maam Cheikh bu Kunta boo nee kokki wax nga Sénégal boo nee kokki wax nga Afrique parce que ki taxawal kokki fa ko wéer mooy xam-xam jàng ut xam-xam jaamu yàlla liggéey loolu mooy dund doomu aadama loolu boo ko génnee ci dund doomu aadama dara du fa des photo bi ñu jël nii jox ko góor gi léegi léegi mu góor gu màgg gu moo nekk noonu ñooñu c'est les grands hommes man ñoom laa tuddee les grands hommes ñooñu mooy ñi nga xamante ni tey ñooñu bàyyi héritage boo xamante ni héritage boobu noonu waruñ ko weccoo ak dara parce que ñooñu dañu wan yoon guddi gi ñu tey boo xoolee addina bi yëpp jafe-jafe yi nit ñaa ngi xiif nit ñaa ngi daw di génn di dugg ci gaal yi di dem nit ñu ngi nekk ay terroristes ñii ñi ngi toj di yàq di saaga loolu yëpp lim ñuy wan mooy ne tey modèle royukaay kan nga war a roy ñu tuddee ko les critères d'éligibilité des modèles sociaux est-ce que modèle social mooy ki nga xamante ni réputation la am football kat football la boo xamante am na tur naa ko roy wala est-ce que dafa war a nekk woykat boo xamante ni am na xaalis am na oto bu rëy naa ko roy wala est-ce war a nekk mbërum làmb boo xam ne am na doole naa roy ñu ne kan lañ war a roy loolu day baax ñu taxaw ci parce que suñu doom yi bu ñu leen yebalee école ñu dem jàngi kaye ba ñuy yor di ci jàng boo xoolee ci couverture kaye ba photo kat nga fay gis wala photo photo feccikat wala photo footballkat yaa nga ko demal wuti xam-xam pour faj ay soxla mais royal ki nga xamante ni dafay wëy wala royal ki nga xamante ni dafay fecc déedéet ñi ñu war a roy mooy góor googu noonu am mel saxir loo ñooñu nga xamante ni xam-xam kese jàng julli jaamu yàlla parce que tey boo defee loolu dara du la mën a fëkk ñooñu héritage bi ñu bàyyee héritage boobu boo ñëwee fii kokki da nga ciy naan ba mandi parce que loolu moo fi nekk muy benn ñaareel bi kokki modèle de loyauté la modèle de reconnaissance modèle de générosité parce que formé na ay nit ci jumtukaayu boppam léeg-léeg dégg nga ñu koy wax kenn du fi indi sa doom di fay bu feebaree xamoo bu xiifee xamoo bu soloo xamoo sëñ bi mooy def lépp mais lu mel noonu boo ko amee dañ ko war a jëmmal boo ko amee dañ leen war a dooleel alors ñooñu mu formé tey ñu jóge fi dem di wëlbatiku ñëw di fi indi li nga xamante ni moom la leen kokki jox di ko fi delloo dama ne loolu modèle de reconnaissance la boo xamante ni dañu war a rendre hommage les pensionnaires bi kokki ñi nga xam ne ñoo fi jàngee woon tekki fi am dem ëllëg ñëw di wàññeeku di ñëw ñooñu fu ñu toll war na leen ñaanal war na leen xool comme ay royukaay ñaareel bi l'apport de Koki dans notre maanaam poids bu kokki am ci biir économie pois bi boo koy seet du ne kokki am na usine wala kokki am na am na am na am na am na am na ay usine wala am na ay service déedéet da ngay seet kokki li muy produire li muy génne li muy génne ci ay xale yu fiy jàng di am xam-xam dem di fonde seeni ay propre société di am daraja di ko delloo ci biir économie réew mi donc ça veut dire que la commune de Koki monsieur le maire c'est important war nañ ko gën a mën a wane nit ñi di xam di fi def journée ville porte ouverte di fi ñëw di xam kooku li mu tekki monsieur le sous c'est important parce que tey bu ñu wax model royukaay dañuy jàpp nit rek nga war a roy les modèles d'accord les hommes les personnes peuvent être des mais les y a des villes am na dëkk yoo xamante ni ay royukaay la ñu kokki aussi tey ci biir Sénégal man dama gëm ne bokkuñu ci model bii kokki di génne buñ ko wisaaree ci biir gox-goxaan yépp wisaare ko ci biir Sénégal yépp day dem mooy jàngal nit ñi te yàlla tax former leen te yàlla tax bàyyi leen ñu demal seen bopp boo liggéey yàlla dana leen wàññi ñu dellu si def li nga xamante ni moom nga def si ñoom en tout cas ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax sëñ bi ñëw nañ fi si jàmm ñoo ngi ñaan yàlla ñu bàyyi fi si jàmm liggéey bi nga xamante ni sumb nga ko fii ñun ñun la wax ne la lii la ñuy def wala la ñuy def jàppal na ñun suñu loxo mu ngi ci guddi suñu loxo mu ngi ci bëccëg nga yëg ko ñàkk luñ ci mën def di leen ko def te duñ la wax sax ne di leen ko def buñ fi ñëwaat den fi ñëwaat boo xamante ni bu boobaa maire bi lay waxal mu woo askanu commune bi yëpp ñu toog parce que projet yi territoire boobu noonu bu bëgg nañ jëmmal fii benn projet bu ñu ngi ko tuddee case numérique. case numérique maa ngi ciy waxtaan ak docteur Lo waxtaan ñu ciy waxtaan case numérique mooy benn néeg la boo xamante ni dañ koy tabax fii ci biir Koki buñ ko fi tabaxee ci biir case ba parce que boo nee case numérique case néegu ñax lañ ko jàppee numérique mooy xare la mooy mooy am aada sa cosaan nga xam ko xam lan mooy fa nga bokk mais mais aussi nga ubbeeku kaas bu mel noonu bu ñu ko fi tabaxee ci biir kaas bi dañ ci dugal histoire Koki kokki ñu dugal ci biir Ahmed Sakhir Lo mooy kan fan la jóge Koki ban at lañ ko sanc ñi fi jaar ñëpp seen histoire nekk fa muy Touba muy Tivaouane ñu dugg ñu chargé ko stocké fa lépp li nga xamante ni mooy nekk histoire réew mi parce que Koki mooy Sénégal ba pare ci wet gi nag ñu teg ay application ak ay logiciel yoo xamante ni mën na permettre nit ñi ñu former leen ça veut dire xale yi bu ñu duggee ci biir case bi ak sa portable mën nga dem ut benn lien dugg ci biir case bi xam sa histoire parce que nit boo xamul sa histoire mënoo def dara wolof wax na ko balaa ngay yontu da ngay dëgg fu dëgër boo gisee xale yi léegi neex a fëkk c'est parce que dañoo taxul fu dëgër dañ leen bàyyee internet mu yar leen internet baax na mais boo bàyyee internet sa doom mu yar ko rek dana si def loo xamante ni bu ëllëgee yow da ko bëgg génne mu tegu donc loolu moo tax ñun ñu xalaat ñun itam du ñu bàyyee internet kese ak xale yi état bi day dem dugg ci biir internet xool li mu bëgg mu dugal ko ci boppu xale yi mu def ko ci te li mu def ci boppu xale yi mooy xam sa bopp xam sa aada xam sa cosaan xam li nga doon boo xamee li nga doon ba pare nga ubbeeku dem bitim réew xool la nga xamante ni dina la jëriñ nga jël ko nga boole kook yow li nga doon boo ëllëgee yaakaar naa danga nga mën a tabax dara te la ngay tabax da nga ko mën a bàyyi yow itam say njaboot parce que àddina loolu kese la da ngay recevoir dara assimiler ko conserver ko mais aussi da nga koy da koy transmettre ñoo ngi ñaan yàlla li ñu def fii tey yàlla na nekk lu barkeel pour askan bi yëpp na nekk lu barkeel pour génération yi di ñëw ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew si nuyoo bi suñu sëriñ sëriñ Matar Naar Lo di ko ñaanal yàlla na fi yàgg te di nuyu chez le chef de village bu Koki di nuyu l'adjoint au maire de Koki les conseils municipaux yi fi nekk di nuyu monsieur le directeur général di nuyu aussi euh, chef de division yi mu ànd ak moom ñëpp toute sa délégation di nuyu aussi kilifa yi fi nekk yëpp di enseignants yi di ñëpp ñoo xam ne ñoo nekk si daara ji di nuyu aussi xale yi nga xam ne ñoo nekk fii si daara ji nga xam ne tey jotaay bi pour ñoom la maa leen di nuyu di nuyu ñëpp ñoo xam ne tey ñëw nañ si bis bi mu doon aussi bis bu am solo la di remercier le directeur si déplacement bu mu def ak ñu mu àndal mu doon jour boo xam ne jour bu jour fête la ñu bëri. dañuy yàkkamte nga dellu fi dellu seen kër pour pour préparer fête bi mais dafa décider tey ñëw ànd ak délégation pour tey indi fii fii si Daara Koki mooy boulangerie mobile. lii nag day def suite li nga xam ne moom la président de la république waxoon bi mu dajeeg eh, chef daara yi bi mu dajeeg bi ñëpp bi mu dajeeg jam ñaajo ñu mu ñu wax seen bëgg-bëgg mu waxoon aussi engagement bi nga xam ne état bi moo ngi koy def pour jàppale aussi daara yi. ba si waxoon maire yi aussi pour les fonds de aussi ñu jël loo xam ne aussi da leen si boole di leen si gën a jàppale te ñu gisee aussi au niveau du ministère des collectivités territoriales mu nga def acte bi du ñu bett parce que ministre Mamadou Talla fi mu nekk seen kër daara la Mamadou Talla man j'étais suñ ci ba mbay seen kër soo fa duggee te da ngay fekk ndongo yi ñooy nekk si biti di jàng alxuraan donc kon tey jii tey soo ko defee moom dina ko neex parce que ñoom il est issu d'une famille maraboutique les taala taala ñoom ñooy imam yi nga xam ne ñoo nekk suñ ci bamambel taala la ñuy sant donc tey nga def ko day doon donc lu am solo la donc euh, boo xam ne ñëpp kontaan nañ si yaa ngi si indi moment boo xam ne aussi li ngay wax par rapport à l'insécurité alimentaire nga xam ne de année yëpp ñun suñu mbay mi dañ chenilles yi ñoo ko menacé ba nga xam ne chaque awar yi dañ koy menacé temps yi ka DPV semaine bi yëpp ñoo ngi fi pour traiter champs yi pour éviter Euh, li nga xam ne commencé na sax awar yi daan ko lekk mooy si ñebbe bi muy si si si gerte gi daaw attaque bi attaque bi dafa métti woon ba nga xam ne production bi wàññeeku na mais tey suñu gisaatee ñu posé acte boo xam ne euh, indi fii boulangerie mobile ba pare aussi def introduction blé pour ñu ñëw culture ñu ñëw di bay fii blé pour loolu aussi dafa nekk lu am solo la te dans l' avenir aussi je crois ñun foofu lañu war a jëm parce que blé bi situation international bi nga xam ne am na gis na ne bele bi moo gën a jafe pour ñun ñu si jot bon tey suñu ñëwee ngeen posé acte bi accompagner leen ba nga xam ne wut tool boo xam dinañ fi mën a bay ba mën di alimenter fii diñu mën a jox mburu fii yëpp je crois que loolu projet bu am solo la di di la féliciter en tout cas si li diligence bi nga xam ne àndal nga ko pour Koki mën a bénéficier wu si si mbir mi fii nag comme ni nga ko waxee nag c'est un daara exemplaire fii xale yi dañuy jàng dañuy jàng carrément sur le plan euh, si alxuraan bi ak aussi sur le si français bi man sama doom bi may ñëw fii il était beneen localité laa ñëwoon mais bi mu ñëwee niveau yi souvent day am day am day am problème bi mu ñëw ah son entrée xawoon na am jafe-jafe mais mu commencé di ñëw fii di réviser xale yi fii di di di ñëw si institut bi di fi jàngee je mu suis rendu compte que ne lu baree bari rattrapé na ko an fii lay ñëw di jàng di ànd ak xale yi xale yi gën ko motiver yaa fekk say copains xam fii lay nekk toutes les nuits fii lay ñëw di jàng xale yi motiver ko moralement ba nga xam ne ànd ak ñoom dans le rythme ba ñëw ba jëlaat rythme bi seen classe. parce que yàlla dimbali ko les sorti première de sa classe yëpp durant toute mu amoon foofu tey ressource boobu fii la ko jëlee. fii ko jëlee ñi nga xam ne ñoom la nekkoon doon jàng ñoo ko may doole may ko volonté ba mu accéder foofu bon pour dire jàng xale yi dañuy jàng te disante je sais que d'ici quelques années je crois dina produire ay cadres yu bëree bare bëri fii la ñuy jógee. parce que ñoo ngi si résultat yi examen wane nañ ko bac bi 100 pour cent BFM bi 100 pour cent pour montrer résultat depuis daaw ba léegi ti foofu lañ nekk di ñoo ngi jàng te ku leen di yaa ngi jàppale Sénégal parce que ñi ñiy bénéficier aussi lii sont aussi de toutes les régions du Sénégal ak yi pays limitrophes ñoo fi nekk di jàng donc pour tey ji ñi ngi ko defal ñëpp Sénégal ñoo koy bénéficier wu vraiment di leen gërëm bu leen sant bu baax te xam naa ne fii aussi ñoom aussi fekk nga leen ñuy liggéey fekk nga leen aussi ñu nekk si si je crois que suivi problème te ñi fi nekk aussi dinañ def le maximum pour li nga xam ne jox nga leen ko ñu téye ko téye bu baax ba nga xam ne dina mën a jur leneen ak leneen ba nga xam ne soo fi ñëwaatee di nga xam ne li nga fi joxe vraiment ñoo ngi koy toppatoo te am na njëriñ bu baax te dinañ ko dinañ gis. di la gërëm bu baax si bi nga xam ne def nga ko accompagner ak le chef de village ak le maire moom mi nga xam ne aussi développement kooku rek lay dox à tout moment fu ñu mënti ne réew fu rencontre bu ñu mën a def rek il fait toujours le plaidoyer pour dëkkam pour développement am si pour ñu gën ñu bàyyi xel. donc loolu aussi tey nga ànd ak moom lii am ak monsieur le maire vraiment dañ la si gërëm di leen gërëm ñoom yëpp ñi xam ne aussi ñoo fi nekk xam ne dañuy liggéey lislaam liggéeyal xale yi lépp lépp lépp si xale yi la jëm donc loolu aussi di gërëm sëriñ bi sëñ Matar Naar xam ne eh, moom lépp lépp moom la te gis nañ taxawaay am na solo solo solo lool fii si fii si kokki mu ne fii si Sénégal am na solo si tous les plans plan boo yaakaar rek ne kilifa war na ko taxawee si dëkk rek moo ngi ñu koy taxawee fii nii donc di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér bu baax a baax vraiment projet yi nga xam ne ñoo ngi ko commencé fii yëpp ñu eggali ko jàmm ak salaam di la gërëm DG di la xam ne rek ne aussi ñoom aussi ñoo ngi préparé la rencontre journée de solidarité bi le mois de décembre aussi parce que annonce bi aussi commencé na là aussi pense l'occasion aussi pour que ñu dajawaat fii pour nga gën a mën a am une idée donc li nga xam ne moo fi nekk je crois que yow tu es de se passe parce que jox nga ñu information yëpp xam nga lépp pense que di la ñaanal rek suñu borom yàlla yàlla yàggal la fii ba nga mën a continuer li nga xam ne donc moom nga euh, sumu pour la pour daara pour daara Koki pour le village de Koki di gërëm ñëpp di sant ñëpp merci. Euh, gannaaw ba ñu sante suñu borom. julli sëlmal ci yonantam bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi wax mbokk bi teew yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi jël kàddu gi ci turu sëñ Maxtaar ak njabootu daar ji ay kàddu yoo xam ne nii dañ koy jottali ci turu sëñ bi di nuyu sëñ Abdoulaye Ndaw mii nga xam ne ni lii war lii am lépp gannaaw yàlla ci moom la jaare mook délégation bi mu àndal yëpp mboolem chef de service am yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di feeñal suñu mbégte ak suñ kontante ci jëf ju ji am danaa ci ñëw léegi di nuyu tamit monsieur le sous ak monsieur le maire ak wala représentant ak monsieur le chef du village ak mbokk bi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di feeñal suñ mbégte ak suñ kontante euh, sëñ Abdoulaye Abdoulaye Ndaw ci jëf ju réy nga jëf ci barab bii nga ko jëfe waaye li gën a daw suñu yaram nun ji nga xam ne ñoo nekkoon di dund ak sëñ ma saxir bi nga indee kàddu bu réy bii nga indi ñu dindi kayit bi nekkoon ci kaw ñu gis ne du kenn ku dul suñu sang bu tedd ba Cheikh Ahmad Saxir booba kenn ku nekk ñoon ku ko gis am nga loo yëg ci sa bopp loo xam ne nii lot làmmiñ lot ne ci wax ko loola suñ ca moon nga wëlbatiku dem doy nañu sëkk jërëjëf danaa jël siwaat léegi <coughs> ña ngi lay sant bu baax di la gërëm waaye dina xamal tamit daara ji xamal ko ci ab jotaay du sotti ci jotaay bu mel nii waaye nag dana am luñ la ci mosol tuuti yaag délégation bi ngeen àndal ngir ngeen xam fii ngeen ñëw fan la daara kokki li muy jëkke mooy kokki ci boppam day dëkku xam-xam boo xam ne bi maam maxtaar numbe moo ko sanc bu lu yàgg li jaar ci ay nit jànge dañ ne ñaari sant rek lañ xamul ñu ñëwoon ci maam Maxtaar muy muy sant ñi sant mbay ak ñi sant si waaye amul beneen sant waxaan mu di wax ci réew bi rek te jaaru fii ci daara maam Maxtaar ci maam Maara ba mag mi nga xam ne nii su amul woon si Amadou Bamba du am fii la jaare ak ñeneen nun suñ Maxtaar euh, nun suñu maam miñ tuddee sëñ Maxtaar mii toog sëñ Maxtaar naar mii suñ maam juñ ko tuddee moo laxasoon jóge Louga ñëw kokki jàng si ba mu noppee delluwaatul Louga sëñ kokki ñaanal ko mu sañ ci ñoom kon nuñ waa kokki li boole dafa yàgg kokki nag sëñ ma saxiir daara ji moo ko sanc 1939 ci ndigalel maam Cheikh Mbay bàyyi alaaj Jili Mbay ak sëñ saam Mbay sëñ a Salaam ak ko njabootam yëpp nun Louga ak ñoom la lañ fekk baax waaye bisub gàmmu la ko woo na ko ñëw yow ñëwal nga dem ci sa liggéey demal kokki ku ñëw nga jàngal ko ngir yàlla loolu moo tax nga dégg daaray kokki sëñ ta fayeeku nit benn dërëm ndax ndigal li ko maam Cheikh joxoon dana ko demal bokk ku ñëw nga jàngal ko ngir yàlla yemul ci jox ko yemal ko waaye da koo jox ak njabootam yebal Baye Sam yebal allah jiili ak njabootam ñu ñëw jàng si mu samp ko ñaanal ko jàppale ko bu baaxit ci wàllu ñaan ak ci wàllu yëpp loolu mooy dox 1939 ba léegi sëñ ma saxiir li tax dañ na ko woon ku ñëw nga ñaanal loolu moo tax nun amuñu xejj ak seen amul wolof bi amul pël bi amul naar bi amul joolaa bi amul kenn ak kenn wala kii ci famille bii la bokk wala ñëpp ñëpp ni ñuy traité ñëpp benn la amul taqale ci lenn doomi sëñ bi ak doomi keneen ñoom ñëpp ñoo bokk yam 39 la sëñ Massax yi nekk ci liggéey boobu di ci liggéey bala 30 mars 88 mu génn àddina bam mu génnee àddina yit amul lu mu fi bàyyil ak njabootam ñu di ko mbu mbubam saloon moom lañ jël xotti te ko jox ko ay soxnaam pour kenn ku nekk am ci morso ndax danaan wax ne man lu ma am lu nekk daara ji moo ko moom tey danaan wax ne man dama bëgg a nekk sëriñ boo xam ne day jëriñ taalibe bi waaye bëgg maa nekk sëriñ boo xam ne bii day jëriñoo taalibe bi loolu la jeexal ak dundam te ñu dund ak moom ñëpp loolu ñëpp mën nañ koo seede bi mu génnee àddina nag sëñ Maxtaar mii moom la yàlla nottoo mu yanu yan waaye moom it fa baayam tegoon tànkam teggiw ko fa benn yoon foofu rek la teg tànkam loola lay lay doxal te it lépp lu mu fekkoon baayam bàyyi woon ko muy benn def na ko junni wala def ko fukk junni def na ko te loolu ñii ma jàkkaar lool ñoom xam nañ ci wàllu yépp ci wàllu njàngum alquran mi ci wàllum njàngum xam-xam mi ci wàllum nekkin bi ci wàllum formation xale yi ci wàllu yëpp fànn yëpp benn gisul te loolu doy na ci tegtal yaakaar naa ne sous préfet am na lu ci junj léegi ci examen yi nga xam ne nii jàll na moo xam yu certificat yi la moo xam ci BFEM yi la moo xam ci bag yi la yàlla defal na ci sutura kokki ndam loo xam yaakaar naa suñ demee ba éducation nationale di def di ay classement établissement yi yi nga xam ne ñoo juuti ci réew mi damaa jorte ne cinq premières yi moom kooku di ci mën a génn te loolu ay at ngi nii ma ngi dox ci loolu le gannaaw toujours Prytanée militaire bu saint bi ak Notre-Dame di Liban ak ak bu kii Gorée euh, Mariama Bala xaw ma toujours kooku moo daan ñëw ñil quatrième loolu nag dañ ciy sant yàlla gannaaw yàlla dañ koy sonte sëñ Maxtaar mii ndax taxawaayam ak liggéey bi ak ji mu ko jox ak yitte bi mu ko jox ndax li mu fas yéene fa bàyyam tegoon tànkam liggéeyal réew mi liggéeyal doomi réew mi former leen teg leen ci am yoon teg leen ci aw yoon ëllëg bañ am njariñ amal seen bopp njariñ amal seen i mbokk njariñ amal seen réew njariñ nee na lam ci daan teg mooy nañ dem ma dem yàlla bu ñu gisanteet ba kër yomal xiyam ba léegi loolu mooy dox loolu sant ci yàlla bu baax loolu dana jaadu soo jaaree kokki ñu wax la soo ñëwee kokki ñu wax la ko leneen li ci topp tamit gis nga fii keroog yaakaar naa ñëw nga fi bi Covid bi amee lañ xalaat fekk étudiants yi njëkk a am ñu dem Madinatul Munawwara mooy euh, jaamee islamique université islamique bu nekk medin ña fa njëkk a dem bañ ñëwee sëñ ma sax yi dina la laaj nan ngeen di añee an nan ngeen di reere ñu ko nun de dafa am luñ naan mataam ab restaurant bu fa nekk boo xam ne waxtu sàngam lañu ubbi suba waxtu sàngam mu tëj comme ni mu amee université rek waxtu sàngam la ubbi bëccëg waxtu sàngam mu waxtu sàngam la ngoon pour ñuy reer waxtu sàngam mu tëj mu ne loolu de xanaa ku ko amoon ci daara ji dana baax ndeke sëñ Maxtaar dégg na loolu jàpp na ko ba bi Covid bi amee mu ne léegi mënuñu ko waaye nañ jéem jéem a defal ab restaurant boo xam ne bii lu mel ne la ci université nun amuñu capacité boobu ndax loolu yëfi ta la te suñu mooy amuñu ci. kon ñu ne kon léegi mu woo doomi daara ji yëpp ne leen kaay leen ñu bokk ànd liggéey mooy lii ngay gis nii ci leen nekk sànce la te àggagul te ña ngi ñaan beneen yoon saa bu àggoon bañ ko doon ubbi sax nga bokk ci ñu koy ubbi loolu pour doomi daara ji la mu nekk seen añukaay seen reewukaay seen ndékkikaay ngi indi waatal na nag dool na ci fekk ñu doon tabax tabax nañ boulangerie ba pare nga andi nu ci boulangerie boo xam ne bi xale yi ndaw yi danañ ci bégg a bégg booba ba tey ñu ngi fecc ka tëbaka dal waaw ñu ngi ci bëgg a bëgg kenn mu tëgg seen bi waaw xale yu ndawee nii surtout ñu dëkk Kaffrine ñoom amuñ ci seen sago booba tey ñu ngi tëbaka dal mooy leen da ngeen di def ndànk nag suñ amee tamit du yéen njëkk ko moom yéen ak ñu sant Njaay ak Siise ak Jaxate ak Jóob yéen ñëpp yéen a ko bok waaw te loolu yaakaar naa ne xale yi moom ñaan yi leen naa ñaanal kenn mënut a tëtee du dal kenn mënut a yaag équipe bi nga àndal soo yàlla jëm ca kanam rek nag ndax xale yi bég nañ bégaay goo xam ne gi kenn mësu koo kenn mësu koo bis kon nag dañ lay ñaanal yàlla yàlla dolli la nga nuyu nu tamit sa ministre tamit sa ministre tutelle bi nga xam ci nga aju ak lépp nga santal nu ko gërëmal nu ko ndax lépp lii su amee gannaaw yàlla moom su fekkoon ne bi nga ko waxee mën na la déedéet kon tamit du mën a sotti kon ña ngi koy sant di ko gërëm tamit foofu tamit wala ñoo jal bala ñoo taxaw foofu tamit gërëm tamit euh, président de la république ci taxawaayam ci daara ji ak jëfam ci daara ji moo soxnaam yëpp fàttewuñu benn yoon lekkuñu bàyyiñu ci dara kon dañ leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla sàmb leen aar leen wattu leen moom ak mboolem gouvernement bi mu ànd seqal liggéey ñépp nag ah li ci topp mooy ne li nga wax ci affaire boulangerie bi ak yi ciy topp ay mbir la yu soxla lool ndax xale yi ku yor ay xale di leen jàngal da nga xam ne xale yi ñëpp bokkuñu yem ñii mënuñu passé certificat ñii mënuñ cee àgg sax ñii mënuñu passé BFEM ñii mënuñu passé bac maanaam mënuñoo kon ne université seen kii mayu leen ko te ñooñu ñëpp nag kenn waru leen a bàyyi dañ leen a war a jël former leen defal leen formation ndax yooyu rek ku am na yeneen ni yu fi nekk yoo xam ne nii koo formé ëllëg ak si biir dana ci am na ci gis boppam ay mbokkam gis ci boppam mu am lum mën a jàpp ba sukkandiku ci te loolu su amee ci réew mi rek jàmm rek mooy am loolu moo tax affaire formation yi ngay wax yooyu lu ñu soxla lool yaakaar naa ne bàyyi ma du sama juumul am na formation buñ defoon xale yi ci waaw ah trois trois SPT waaw ñoo ko fi defoon yaakaar naa ñii fon lañ ci affaire métallique ñii fon lañ ci affaire électricité ak ci lan électrique ak ak câblage tamit waaw te yeneen tamit su amoon tamit soxla nañ ko kon loolu lu lu am lu am lu am solo la moo tax bi may dikk tamit léegi am na ci xale yi ku bind léegi ki nga xam ne kii lépp lu jëm ci affaire euh, communication bi ak yooyu moo ko yor moom bind na ma léegi na ma surtout liñ gën a soxla woo ci internet bi mooy ndax internet bi dafay manqué li koy mën a doxal mooy figur moo koy doxal di loolu la woon ah, ah, ah, sec ndax ah fibre fibre internet fibre moom moom moom lañ bëgg loolu tamit loolu luñ ci mën a def tamit ñu jàpp lañu ci ndax loolu tamit xale yi suñ sañoon ñoom suñ génnee duñu am complexe d'infériorité ci kanamu kenn ku mën a doon dañuy mën a bokk mën a bokk ci waxuma la ci réew mi waaye mën a bokk ci àddina ci xew yépp ñu mën cee bokk kon nag lii daal lañ waxoon dañ ko ñu ngi lay sant nag di la gërëm di la ñaanal yàlla yaa équipe bi nga àndal sa yéene ak sa mébét yal na la ci yàlla àggale yal na nga dem ba dégg monsieur le ministre yal na nga dégg monsieur le ministre yal na nga dégg monsieur le ministre yal na nga dégg monsieur le ministre yal na nga dégg monsieur le ministre di sant di la sant bu baax a baax a baax ci taxawaay bi ak ci jëf yi lépp daal kenn mënu ko wax li nga xam ne nii li ci wàllu consommation bi tamit loolu moom loo lu ci dikk rek baax ci dikk rek ak lu ci def rek baax na tey lii maanaam lii nga yore ak di ko doxal liñ ci gën a neex mooy ne bañ tasee ca jam ñaajo président dafa am lu mu waxoon ci daara yi yow nag yaa jara jox responsabilité ndax kilifa day junj rek bay waaye ñi ca suuf ñoo war a jàngat loolee mu junj wax ko lan la ñu xam lan lañ ko ca jàppalee ak lan lañ ca war a taxawee yow nag loolu nga def président daa junj ca jam ñaajo bàyyi yow nag nga jàngat waxam joojule moo la andi fi moo la yóbbu ci yeneen fu nga jëkkoon a dem ak si nga doon dem yëpp loolu nag kilifa ñamu am àndal ñu di ko dar ñu di ko jàppale ci liggéey waruñoo nekk ab rëkk joxoñ koo xam ne balaa xam ne muy def rek dañ naan ko telu rek mu ne ah ñu dem mu la ko defal lii déedéet yow nag nekk ko ab rëkk joxoñ yow président daa junj rek nga xam nga dox xam ci lan nga war a dox ak fan ngay war a dox jëmle yow yaa ko dimbali dëgg moo tax loolu ñu ngi yëkkat suñu baat ca kaw di ñaan fii nga nekk yal na nga ko weesu sey mébét ak say yéene yal na nga ko àggale yaa équipe bi nga àndal yépp nag lii lu rëy la ci nun ñu ngi sant di la gërëm di la ñaanal yàlla di la waxal ne lenn daal mooy mbi moo moo moo ñuul ci sow mi mooy ne sa xale ndaw ndaw yi daal moom moom mayuñu ñu jàmm mayuñu ñu jàmm naan mburu mburu am na mburu am na mburu am na mburu am na mburu am na mooy leen def leen ndànk mburu mi soo amee tamit yéen ñëpp koy bokk waaw loolu xale ndaw ndaw yi mooy mayuñu ci jàmm sëñ Ablaye loolu mooy waaye ña ngi lay waxal ne la daara ji am na yeneen i daara yoo xam ne nii dañoo soqi koo ci daara gi taxawal ay daara te yaakaar naa yow Kaffrine du mooy sa région as ndaw kenn la ci njabootu daara ji def na foofa daara joo xam ne ji nanga nga ba àgg nga seeti ndax lam fay def état la koy defal ndax ñaata nit la jël di leen fay ñii di togg ñii di jàngale ñii di faj ñii di lii ñii di lii ñii di lii ñii di lii na fa àgg ba gis lan la liggéey foofa ca ndukkumaan nang nga ko na na nga fa àgg xam na ci sa région la waaw loolu na ko na na fa àgg ba xam ba gis la def te yëmul ca loola waaye yaakaar naa am na benn CM tamit boo xam moo ko moo ko tabax ca ah jaxaaw CM ba moo ko tabax yëmul ca loola ba mu ko tabaxee ba noppi daa jox principal ba da koo jox oto kon nag loolu kooku na état xam ne moom lay liggéeyal ndax yooyu yëpp état la waroon tabax école yeeg nangam waaye yëpp moo ko dem te soxlawu ci dara bëggu ci dara pour population bi rek la kon foofa lu mu gàtt gàtt na nga fa dem ba ba gis ko xool kooku la muy liggéey te yaakaar naa su ngeen gisee tamit dana bari yu bari da ngeen ci mën a jaxasoo ci wàllu liggéey ngeen ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di ñaan yàlla bis bii nga xam ne moom nga ñëw muy yow Ashura muy bis bu rëy ci lislaam li ci nekk ci ay ngëneel lépp yàlla na la dal yaa sa équipe dal na nun ñëpp nag li ci nekk ci barke lépp yàlla na la dal ndax bis la boo xam ne bii kat ci gat gàtt yonent yàlla Muusaa diggante ma Firawna ci la ci la mucce woon yonent yàlla Isaa ci la mucce woon bari na yonent yu bari ndam yan am ca bis bi ci lañ ko am kon nag ndam yooyu yëpp yan na ko yàlla boole defal la ko te soo demee loo sant sa ministre tutelle ak la premier ministre Amadou Ba surtout seen kilifa ñoom ñëpp muy Macky Sall nga wax ko ci sant ak ci gërëm seen diggante digganteeg daaray Koki sëñ Maxtaar loo ci wax rek xeeb nañ loo foo ci yam rek yaa fayal waaye loo ne xuusal dem kon nag ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla di leen jégglu ci yàggaayu toogaay bi yaakaar naa léegi mën nañoo jóg suñ noppee euh, waaye nag nga wax xale yi euh, Alioune Badara Cissé da ngeen di toog maanaam mburu ma moom jëfandikoo guñ ci léegi dañ doon seet rek dégg nga suñ demee ba àgg ba seet ba noppi nag ngeen doog a seet nu ngeen di def xam naa ne yaa ngi fi sa papa ngi fi waaye def leen tànk def leen tànk tuuti bu leen yàkkamti may leen tuuti bañ dem ba ca biir. amul soxla amul ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox daara ji dox mooy sunu soxla amul beneen soxla. sunu lépp ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak yëpp sunu mbir mépp mépp mépp daal ma ngi ayu ci daara ji dox bu daara ji lépp dox. wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلهنا آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد nañ jàpp ci daar yi nañ jàpp ci daar yi rawaat naag doomi daar yi jaar ci daara yi doomi daara yi teraang yi leen yàlla jox xëjul ci daar yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maa ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk Daarakoki TV la chaîne au service du Saint Coran télé bi liggéeyal al Quran al Karim